léegi si kaaw Dame Sène si même émission bi tamit kaas na fi nga xam ne moom mooy euh, Abba ak ki nga xam ne nii moom mooy DJ Kheucha si c'est bon nañu ko dem déglu daal gën ko faram fàcce. ndax fuy gi ñu fuuy yëg seen bopp bëgg na àdduna bàyyi leen xel xaaral rek may nuyu nag bu baax Ndiaga Ndour ndax dafa ne ma sa bés bi Dakar na door pa laa mu couvrir ko. Ndiaga Ndour maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ba pare barki démb boole maag nit nit kooku woo ma téléphone ma Ndiaga ma boole yow nee nga wax yow lan nga ko bëggee ñu defee ko dégg nga loolu kon Ndiaga kooku c'est à saluer lii mu geste bi mu def. Euh, Kheucha fa mu nekk 2STV ku yëg boppam a ngi nii waaw ku yëg succès ngi nii gis nga fi animateur bu ne jaar na fi ana DJ Boubs ana DJ Boubs ñëw na. di def di def di def ba léegi di jëboob sa ngi toj àdduna bi lañ moo ko may OFTM jox nit ni cër yamal la ñëpp mais ay animateurs yu gën la ay nit man ci xasaa bi laa gisee ak Aba amul a man kaay ma wax la benn affaire de jox ñu ma ma lekk jox ñu ma ma naan yaa ngi dégg xam nga man lan laa mënta concevoir nga ni animateur nga. artiste bi soxla la nga koy jaay affaire mu lay message doo tontoog wala ngay tont ay tontu yu gàtt de sa affaire soof yooyu man bëgguma yooyu man li nit ñi wax ci suuf ci kaw laa koy wax ndax ragaluma leen moomuñu ma jiituwuñ ma ci aar yaa ngi dégg tey ku la ci invité toog yow ci plateau nga ne kii da laa bëgg dañuy def seen sambala yooyu ñuy def eh, eh, eh, seen affaire yu fekk xoolal lenn man xamal la laa bëgg bu ñu toogee plateau àdduna duñu seetaan nga wane li ngay wane foofu. or camera na wane la nga wane woon ca caméra ya waaw dama ko xam ndax da ngay maanaam da toog di bëgg a ak ñoom wala nga toog am benn affaire boo génne di leen ko yónnee wala nga toog di leen message ñu lay ñàkkal fayda di la sous-estimer mel ni ñoo la gën mais man gis nga suuf si comme ñëpp a fay dem ku yebu le gis nga koo wax boo waxul ak ñi nga war a waxal ba dee dootoo wax ak ñoom. boo lekkul li nga war a lekk ba dee dootoo ko lekk boo sol li nga war a sol ba dee dootoo ko sol ñun ñëpp benn lañu ñoo bokk métier mi ñoom ay animateur lañu ñun ay artistes lañu waruñoo mën a réeroo ci ay mbir mais tamit lan mooy problème bi ah ngay wut ay koy gën a lekk koy koy man xamalal mooy affaire bi sax mooy man maa ko def sax maa waroon a toog fee ci américain yeey am fa sama jàmm xanaa xamul lii moo tax artistes yu bëri découragé alors moo ngi noonu euh, Dame Sène mooy dal si ki nga xam ne mooy Abba ak nga xam ne mooy Kheucha parce que jàpp na ni dafa am benn événement boo xam ne da ko tëgg foofu sa Thiès mais peut-être danañ ko envoyé ñoom dafa am réaction wala def nañ réaction mais réaction buñ euh, def moo ko neexul ay Ouz. Hmm? Abba Kheucha Abba <laughs> moo tay ndax seeni téléphone du yaa ko jënd wala ko la jege. te du da leen war a woo jot leen par force du force du dañ la war a répondre par force du danoo war a wax ak yow parforce du yaa muum nit ñi bañ war la jël parforce force moomu nit dangay ngay logique wax ju bëri maanaam wax rek balaa balaa pour lan mais Kheucha day animé. Abba ah di animé yow quelqu'un nga t'as fait tout t'as fait de l'art toj nga fépp damay wax en tant que nit man sama waay ma bokk na ne émission bokk ci émission mu film ma fil ko mais en nit laay wax bu ma la woowee jotuma message de tontu woo ma gis mbiliw dëgg yàlla dëgg yàlla koo mën a doon nag ci àdduna ma message de tontu ma woo la jëloo hmm. dootoo gis mbilu ndax yow ñeneen ñu ngi lay message jëloo leen ñeneen nag lay diwoo jëloo leen xool ko ci sa bopp ñi ngay wax teg fa sa bopp rek ñi ngay wax yow teg bopp maanaam nañ bàyyi victimiser wu hmm. ak jéem a jéem a wax yoo xamante ni day de day déranger wala muy jaxase nit parce que even gisal maanaam lu ñu la mënti jàppale mus nañ la invité benn yoon nga dem de kon sa promotion bu dee deux secondes sax joué nañ ci de. ça c'est sûr. man dama fi nekk di ŋaayeeg di ubak di texale ma ne la porta Abba moom moom portable am ku ko neex mu jël la ku ko neex du la jël ku ko neex mu tontu la ku la ku ko neex du la tontu de même que Kheucha demoo jëndal leen téléphone joxoo leen crédit du par force la pour ñu wuy laa ñàkk la wuyu nit da ngay xam sa bopp. man nanaa bu ma la messager tontu woo. sama xel li muy njëkk a jàpp mooy. nanaa dafa jàpp. bés bu yembee dina ma def si ci xel mu sell. waaw. mais gis nga ni abaa di liggéeyee yow. xam nga ko gis nga ni xëcaa di liggéeyee xam nga ko xëcaa mu ngi tourné bette bette pare dem fee nangam sangam nit di sonn di noppalu. ku la wax ndax nangam sangam déedéet nañ ba. moom ko sax moom nee na tontu bi nga tontu moo gàtt. waaw léegi léegi léegi luñ bëgg. tegal la cassette wala single comme ni nga koy defee wala defal la album non non non mais tiwul woo woo naa la jëloo woo naa la jëloo dootoo de gis sama appel message naa la tontu woo message daal la tontoo dootoo gis sama message mu jeex jarul ay wax ju bëri ah. peut-être euh, alors euh, Fama Kassé ñu ngi lay jaale bu baax a baax mu ngi naan tey dama ñàkk sama benn frère sur la route de Tamba. Oh. alors ñu koy jaale bu baax a baax ñu ngi a di ko ñaanal yàlla xaalis àjjana. amiin amiin Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu baax a baax Fama Kassé. Massa Fama kooku suñu frère la. waaw siggil ko ndigaale. yàlla na saa xam yaa ngi seen loxo alors euh, nana comme ni ko waxee si si après des ñëw après pare voilà alors Dame Sène d' accord euh, nit ku peut Sénégal Sénégal ma mel noonu du daam seen kese sax mais looy wax en général Sénégal pour moom bu la envoyé message par force da nga war a tontu alors am na kenn ku nekk si ligne bi salaamaaleykum allo alors dafa mel ni moom euh, dem na peut-être dina ñëwaat alors euh, fu ma doon wax mooy ça veut dire moo yaakaar ni maanaam. par force boo bu la envoyé message da nga a tontu. Hmm. nit dina sax nekk en ligne nga envoyé ko message su mu bañ la tontu parce que xamoon lan lay nekk en ligne mu xamoon lan lay def peut-être mu nga nekk si appel mu envoyé message nga gis koo nga wax leneen ak leneen eh euh, bu fekkoon def ni carrément dama woo Abba jëluma ma woo Dija Xassa jëluma. Hmm. la sax mun naa wax mais. dama leen di envoyé message mais tontu yu gàtt lañ may tontu ak yooyu. duñ la tontu wala ñu lay tontu tontu yu la tontu wala ñu lay tontu tontu yu gàtt. le ah. fait mu ne tontu yu gàtt rek. Mhm. ça veut kooku tontu na la. Mm. te tamit man damaa jàpp nit bu fekkee da nga am loo xam ne maanaam programme la programme bi nga xam ne nii programme bu la kii la man damay. Ah. Mhm. sol sama dàll fekk la ba sa télé. Mm. wala ma fekk la maanaam. ba sa kër. Mm. joxe rendez-vous ñëw wax la sama programme ne laa si bëgg laa bëgg laa si bëgg. mais pas di vocal. parce que dafa toll foo xam ne nit ñi amatuñ jot di nekk vingt as vingt quatre seen seen seen seen whatsapp wala leneen leneen. Mm-hmm. Abba ñëpp xam nañ nga fii bu nekkul euh, génération top animateurs yi waxuma la sax nga xam ne macha allah jot am na benn jot boo xam ne peut-être mënu ko am ba chaque jour boo ko wooyee da nga ko war a jot wala boo ko envoyé message war a jot. fii nii de même que di jëkk ça donc loolu man jarul euh, génn naan ñi dañoo yëg seen bopp ak affaire yi noonu c'est pas ça alors euh, man damaa yaakaar ni buzz lay wut ci programme bi muy bi muy tëgg. man loolu laa loolu laa gën a foog parce que même bu fekkee jamono bii danga nga leen woo jotul jotoo leen. wala nga leen di message tontuwu ñu daan nga leen woo di leen jot. daan nga leen message ñu lay tontu. nga daan dem ci seeni plateau comme Noreyni l'a si bien dit Momo bari na fi artistes yoo xamante ni tey jii man personnellement li li li li mu wax nii dama ciy gis sama bopp hmm, parce que bari na artistes yoo xamante ni da nga leen di message ñu gis message bi pire wala ay producteur gis message bi pire mu leer la ni yow ki nga yónnee message bi gis na ko hmm. du la tontu am benn événement bu muy tëgg yónnee la affiche wala lie ne la partager s'il vous plaît. nga bañ ah luy loolu ma am mat gu toll ni dootuma la message non seulement su ma la messager ñaari yoon ñett li nooree ni wax tontu woo ma nga yónnee ma message ne ma partager du ma la dama koy vu ba nga xam ne vu naa ko te du la tontu parce que bu dee lekk damay lekk ngay lekk bu dee naan dangay naan may naan. ay feeñ ci télé beneen détail la nañu waxante dëgg gis nga fii li ma waxoon sànq rek laay waxaat koo ne yow ak yàlla la muy wan lal la yàlla wanul. maa la wax lii de. <laughs> message naa la tontu ma yow yaay kan foo toj. waaw animateur nga waykat nga loo mënti doon je m'en dama lay teg ni tege parce que am na ñoo xamante ni maa ngi leen di mes ñu ngi message bu ñu sañoon léegi ma tontu leen gaaw ak lu ma mën a doon nag. am na ñoo xamante ni ci seen i gët man. su ma suñ ma message woon te tontuwuma leen dañuy am problème waa léegi yow tuyee kii ba man ma war laa message tontuwoo ma may am problème pour lan foo toj ba pare même bu dul loolu sax moomoo da bari na animat du du ma nee nag kaawu xëcca la parce que man dama wax dëgg yàlla woowaguma ko ñàkk koo jot te saa bu ma ko woowee daf may accueillir xëcca je sais pas benn yoon lañ mës a déggante deux fois ou trois fois quelque chose du du ah, Abba pareillement. merci beaucoup. moom yii ah, moo ko moom kii du maye lu moom ah. lii lii lii. merci beaucoup yaa may dégg. Euh, Abba aussi pareillement su ma juumul benn yoon lañ mës a gisante euh, woo ko fi maintes bul ko laajte du faali du ngoñ sëriñ saaliw mbàkke la mi leeral yoon wi ci ñaan yàlla guur yow mi bëgg ku la seetal mbaa listixaar xoolil sëriñ saaliw tëju nga bëgg a ubbeeku yow mi hémorroïde sonal man li ma ca gënal mooy nombo ga juróom ñaari gaw laa lay wax de e tul war na képp ku yor bakkan di nooy moo xam fetal la moo ca gaaw moo xam paaka la moo ca mën doxu siti sonal nga askan wi waaye di nga xamante ni yaag Serigne Saliou Mbacké la ana takkatu jaare yi man dama leen a bëgg ndax da ngeen si se góor day dëgër këcc dollil góor day dëgër këcc maa la ko wax kër ga danga fay mën lu waay doon nu mu dëgër waaye nag Serigne Saliou Mbacke lii fi mu ko doon du fenn fudul ca maamam ju baax ja jox ko fas wu wóor a wóor a wóor muy Serigne Sidil Mokhtar Mbacke di ñaan yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem Serigne Saliou Mbacke boo ko bëggee gis nooy def dama fekk ko Touba ca dëkk bu sell ba mbaa nga dem dëkk Serigne Baara ba ke Kajoor nga fekk fa Serigne Saliou mu fajal la say aajo lépp nag moo xam nu mu mënti demee rek diis ko ko moom dana ko saafara Serigne Saliou Mbàkke sali allah saalihu waaye yàlla nga fi yàgg lool te ànd ak wér waaye nag gis ngeen bannière yooyu di daw numéro baa ngi foofu mooy daw noonu woo leen